di may topp ma dox am lu ma xool fii rek leen ko waxe woon maa ngi école El Hadji Mbaye toujours ma ñëw fekk fi nga xamante ne moom mooy candidat euh, Abdoul Aziz Gueye ah, bu MPD liggéey ok ma daal di koy jox rek moom tamit mu daal di joxe li nga xamante ne mooy kàddoom tey si élection bi nii naa la bu baax maa ngi nuyu may na euh, di lu euh, seen invitation vote naa si jàmm ak salaam ñaan yàlla vote bi jaar si jàmm ak aussi te yàlla may ndam ki nga xam ne vraiment moom la na ma euh, te yëpp wakaam rek moom moo tax ñu jóg euh, ñu ñëpp benn lañ euh, tey tey bu ñu voté dañuy def suñu devoir citoyen et que maa ngi ñaan yàlla daal yëpp aw si yoon si jàmm assalaam a ah pour l'instant de nit ñi ñëw ne mi xam naa ni ñi di ñëw moo gën a bari te euh, ñu ngi vraiment ñaax nit ñu ñëw teel a voté parce que affaire bi gudd na parce que ñaari vote la donc bu ñu deful attention rek parce que ku nekk di nga def presque trois minutes fi mu nekk affaire bi roodeegul daal donc euh, je pense que si kanam tuuti incha allah euh, ni ñi dinañ gën a ñëw mais il faut que ñii di nekk si biir gën a accélérer affaire yi rek incha allah. Hmm. maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax ah di la ñaanal jàmm bu baax a baax macha allah ah mbégte rek laa am a contentement dagi fekk moom mi nga xamante ne moom mooy Abdou Aziz Gueye ñu daal biir xam naa ñu demaatee si biir nañ ko fekkaat ñeneen ah ñu daal di li nga xamante ne moo fi am rek réaction yi léegi maa ngi ba léegi école euh, El Hadji Mbaye Diop ñu koy oowee école 2 maa ngi euh, bureau 2 bureau de vote numéro de ma daal di ñëw si aussi fekk ñi fi nekk ma laaj li aussi seen réaction sëñ bi nuyu naa la sant yàlla baax ñu ngi lay fay mhm. Badou c'est si def mon devoir comme tous les citoyens oh, mas masse bi day amagul affluence bi ma ci yaakaaroon dam naa li mu teel moo tax peut être que ci kanam mhm. euh que ñëpp calme am sérénité voter euh, ci jàmm ñibbi ci jàmm euh, xam ne lépp wakaam la euh, que ne ku mënti gagné tamit rek lay jariñ donc ñu jàpp loolu bu baax benn bopp la kenn mënuñoo xar ñaar loolu laay ñaan waa Wakaam. merci beaucoup jërëjëf. Euh, macha allah comme ni ma ko waxee woon léegi rek maa ngi ba léegi école euh, école 2 koy woo école euh, El Mbaye Diop ma fekk fi benn papa ma daal di koy nuyu aussi moom tam jox ko waa ci waayam di ko laajtee nan la gisee vote bi. asalaamaaleykum maa lay nuyu di la ziar yow tam bon comme niñ ko constaté rek alhamdulilah suba teel bi ñëpp ñëw nañ ñëpp ngi voté si jàmm foog naa li ñaan rek mooy comme ni mu commencé nii mu continuer noonu. ku nekk ñëw voté bu dee doo représentant wala amoo benn soxla boo voté ba pare nga dem sa kër doxi say soxla loolu bu ko ñëpp defee rek coow doom incha allah loolu la waaw. lan ngay wax waa Wakaam aussi. bon li may wax waa Wakaam rek mooy ku nekk xam nga yow kii nga xalaat ne mooy candidat bi nga xamante ne moom nga xalaat ne mën na doxal dëkk ku nekk nag candidat bi nga xamante ne moom nga gëm óolu xam ne mën na doxal dëkk bi na nga ko voté la jàmm jël sa carte dugal ko comme niñ la ko santee nga dellu sa kër coow du am kenn du am benn problème.

pour euh, les populations et euh, pour la ville et euh, ñu ñëw def ko ci jàmm ak salam ku nekk dem sa kër et puis bu résultat yi gagné, qu'on soit fair play ku nekk xam ne ni la demee incha allah. Inch'Allah. Hmm waaw xam nañ li mais aussi euh, xam li xew ci dëkk bi il faut sécuriser les votes on n'appelle pas à la violence on n'appelle à rien du tout ku ci que je pense que ce ce leader euh, na le suffisamment pour nga xam li la war pour paree ci vote bi pas de violence ni rien du tout ku nek ci kër nga jógee te dinañ dellu ci kër inshallah ci jàmm ak Salam, neexee yalla maa ngi lay jaajëfal yow aussi. ma fekk fi sama benn papa aussi ma jox ko moom tamit daal di nuyoo ñu nuyu ko bu baax a baax jox ko waa ci waayam ñu laaj ko tey li nga xamante ne noonu la gisee vote nii naa la. waaw ah, vote bi de ni ma ko gisee euh, ñu toogee si jàmm vraiment loolu mooy li gën waaw ah, yaakaar naa ne ku xool le chiffre un buñ ne pour tous tous pour un yaakaar naa ne loolu ku ko xool rek doo sonnati man nga voté sa jàmm dem si yoon jeunes yi daal man li may wax si jeunes yi bu ñu voté pare ku voté na nga dem toog sa kër xaar résultat loolu mooy li gën mooy jàmmi dëkk bi te dëkk bi benn benn bopp la. non xaw naa fi yàgg tuuti rek. waaw mais dëkk bee ko jar quoi. Mhm. jërëjëf. ko waxee woon nee naa mag ñi ñu ngi fi xale yi aussi ñu ngi fi ñëw nañ massivement daal di voté ma fekk fi sama benn naatangoo moom te ma daal di koy nuyu jokko waa ci waayam mu nuyu ñu joxe aussi li nga réaction bi fi am ak nit ñi ndax génn nañ wala génn waaw asalaamaaleykum sama xarit sama naatangoo may naa agisali ngi leen nuyu di la ziar bu baax a baax maa ngi tudd waaw di école 2 bureau 6 waaw nañ nañ mais na damay woote rek pour gars massivement parce que dafa jël temps trop c'est pas vite fait man la rek mu mais euh, il me semble que vraiment affaire bi jël na temps trop gars yi nag war nañ mën a génn nañ nag mais des na des na des na bu baax a baax a parce que ñoo fi génération des na des na voté ba dem war a génne ñu aussi hmm. xana di wote non violence rek parce que suñu leader loolu lañu wax non violence di wote non violence ku voté ba pare euh, mission ba nga war doxé nga doxé ka la nga war charger nga charger ko baña ciow baña xex baña xulo té ku nekk tam la ngay def nga tek ko à la règle ba nga xamante du am benn département ñu tek lepp au normo ba ki gagné gagné que le meilleur gagne ki gëna sonu tam yalla na gagné <laughs> merci beaucoup Mayna merci beaucoup jaajëf. ngi école mambay job euh, ma ñew fi nga xamantene mom moy ci bureau 14 13 yep fi la nek ma daldi fekk fi sama benn pap mom te ma nuyu ko joko waa ci waayam jokko mu nuyu téléspectateur ñi sétane wax ñu tay ji nan la gisé vote bi nuyu naa la. ay ma ngi lay fay ah fu mu toll ni de ni ma ko gisee mooy mi ngi mi ngi jall si jamm quoi bi ma ñëwee fekk na fi nit ñi ñu ngi rang bon y' a pas de problème quoi. boobu léegi daal ñu ngi avancé quoi benn problème te ñu ngi waxtaan di di ree di kii di di avancé ndànk-ndànk bala ñu suñ tur di jot. mooy ñu continuer ci nii rek mooy ñu jàpp ko nii rek ku nekk ñëw rang wote dem ñibbi ci jàmm quoi mais aussi c'est important que ñu bàyyi xel ci sécurisation vote yi pour que. Euh, bu fekkee ni représentant yaa ngi ci biir ci biir ñu mën a taxaw xool euh, mbir yi ni muy demee jusqu'au bu pour mu bañ a am benn problème parce que au-delà de ñiy rang di voter am na aussi ñiy euh, dajale mbir yi pour maanaam euh, dajale li nit ñi voter pour maanaam génne résultat yi bu ngoonee kon foofu aussi ñi nga xam ne ñooy représentants yi mooy maanaam mandataires yi war nañoo taxaw kenn ku ci nekk sa wàll nga dox ko bu mu mat sëkk pour que lepp jaar lepp jaar yoon merci ah, ko soxna ci ma nga lay nuyu bu baakha baax ah, dafa melni yow voté nga ba paré bureau bi ni mu demee woon si biir bureau bi ça va ci biir amoon na touti problème parce que dañ yéex commencé mais à part ça mom ça va wa affaire baa ngi dem normal wa wa amul ben ben complication non amoon na complication matin bi motax ñu yéex commencé mais légui ça va communication xamoo woon la non comme d'habitude rek da ngay dugg ñu vérifier ba pare après nga soog a jàll nga voté pour ville de Dakar après nga jëlaat du génnaat voté waat pour kii commune bi ok merci beaucoup. ni ma len ko waxe won ah dama dawon dugal ci école bi mais bima genn dama fa dagge ak nga xamantene mom moy Khalifa Diouf ah man nuyu ko bu baax baax jox ko waa ci mom tabi jox ko mu joxe ay réaction li nga xamantene mom la gisee tay vote bi nuyu na la bu baax. Euh, fay naa leen OTV ma ngi len di gërëm di len sargal di len encourager bu baax ci liggéey bi ngeen di def euh, di wax ne rek euh, vote bi pour l'instant tambali na si jamm et am nañu yaakar ne aussi ni mu tàmbalee ni Euh, nonu lay terminer lolou lañuy ñaan euh, en quelque sorte yalla nañu commencer ci bismillahirrahmanirrahim paré rahim pare si alamin voilà lolou la ñëpp di ñaan et puis buñu voter ba pare aussi ñu xamné né élection la won euh, li ci sunu kanam wakam la et li ñu boole c' à dire wakam mom mo ñu ëpp doole ñun ñëpp et que force et que après vote bi rek ñu fexé ñun ñëpp ñu andat doon ben euh, wakam quoi c'est ça c'est mon objectif. le message lancé féliciter d'abord euh, surtout que nous, ñi hein, parce que l'expérience euh, citoyenne dafa hein. donc je pense que vous c'est une première expérience citoyenne aussi c'est bien je vous félicite féliciter mais néanmoins vous ne voté ba pareil aussi nañu bañ a taxawaalu aussi si centre de vote yi wala bureau de vote yi ba ngoon ba heure décompte bi jot ñu ñëw aussi buñ mënee dugg bokk si ñi ci di dépouiller ñu bokk si ñi di dépouiller parce que toujours loolu da leen di jox expérience ah voilà loolu daal laa am lu ma leen di lu ma leen di lancer comme message quoi merci ñoo ko bokk